بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه دي nag mooy la daa xew rek sunu borom moom tabaaraka wa taala coobareem rek lay jëfe te kii nga xam ne moo dem tey liggéey na ci lislaam liggéey ci yoon wi liggéey ci bokk gi liggéey ci taalibe yi liggéey boo xam ne kenn amul liggéey bu ko kawe te def na fi loo xam ne kenn defagu ko fi mbaa bariwul ñu ko fi def ndax li nga xam ne mooy li mu liggéey waxuñu li mu liggéey ci Touba rekk waaye lii mu def ca Ndakaaru muy jëf joo xam ne ju rëy a rëy la fa tabaarakallaahu def ko ci yeneen béréb yu baree baree bare def ko ci fànn gu nekk itam ci taxawaayam bu rafet ak yitteem akuk yëgam ak fonkam nit ak baatinam ku lu jafe la fa tabaarakallaahu ba tax na tey bis la bu metti ci eh, yoon wi bis la bu tiis ci njaboot gi waaye nag dañuy delluwaat ci indi na lillahi way inna ilayhi rajiun ndax wóor na nu ne moom fa mu jëm moo ko gënal fii mu nekk kon nag fa tabaarakallaahu dara mettiwu ci dara amu ci solo li amoon solo def na ko ba noppi lëggeel na eh, maamam lëggeel na yoon wi lëggeel na lislaam ba ba wàcc kon fa tabaarakal sant yàlla rek moo ci war yàlla na ko yàlla xare aljanna yàlla yokk ay leeram ca bar saq yàlla dajale kook maamam ja nga xam ne mooy xaadimu rasul ak ba ak way juróom wu tedd ba la mu yéene woon lépp mu mu jëf ko ba mu mat xanaa kenn mënul xam foo commencé waaye ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, sant borom bu tedd bi julli si yonent bi sallallahu alayhi di dellu di sunu sëriñ Cheikh Bamba te di wax ni ñàkk nañu nit ku rëy nit koo xam ni dundam yépp daf ko jébbal boroomam liggéeyal lislaam bi liggéey bu wóor ba sunu boroom wane ci firnde yu wóor li mu jëkk def mooy liggéey ba tarixa yépp doon benn bëggatuma dégg kenn ku fi tudd tarixa sama mbokk jullit rekk laa bëgg dégg yàlla wuyu ko amatul werante tabaski amatul werante korite amatul werante tamxarit ñoo bokkandoo lépp ñu nag sunu mbokku tijaan yi sunu mbokku laayeen yi sunu mbokku sunu mbokk yeneen tarixa yépp Sénégal te loolu sëñ Cheikh Sidi Maxtaar moom la ko yàlla defal soxlaam yépp mooy jëriñ nit waaye nag aussi bëgg-bëggam yëpp ak soxlaam yépp mooy fàttali nit ñi ni fii noo dund li fi ëpp solo mooy jaamu yàlla suñ Cheikh Sidi Maxtaar kenn mënul wax si moom ba man wër jikkoom yëpp ak mbaaxam li wóor te mooy nit ku am solo la nee naa ko bésam bii damay fàttali ba sëñ Saaliw wàccee liggéey àddina bee dagg ñëpp ñëw bokk bëgg fekk denc bi bi may jógee Ndakaaru ba fi oto yi noo dàqante ki nekk di daw di bëgg fekke denc bi mbooloo mi yëpp ñëw ndax ñëpp ko yoreel njukkal ñëpp ko yoreel ñaan yàlla na ko sëñ Tuubaa fayal man ko wax dëgg yàlla wax si moom dana ma jafe lool tey rekk laa waroon ñëw ziar si ko tey rekk si bëccëg ma woote woote jotuma ndeke booba mbir yaa ngi tar taxaw yàlla naka yàlla yóbbu si àjjana yi gën kawe jébbal ko maamam Cheikh Mat Bamba moom di cëru doomu Sëñ Tuubaa dëgg-dëgg la amoon si taxawaayam si jëfam kenn mënul wax si moom ba jeexal yàlla na nu ko yàlla fayal. wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah ñun nag moom ñàkk nañ kilifa gu mag ci yoon wi mu Sëriñ Sidul Moxtaar ndax man moom yaakaar naa ni li ma ci xam bari na lool ndax nit koo xamante si nii foo ko fekk ngir boole tarixa bi nit koo xamante si ni foo ko fekk ay waxam bariwul koo xamante si ni dafa yéene woon jàmm mboolem jullit yi rawatina taalibe Sëñ Tuubaa yi koo xamante si ni foo ko fekk ci lu baax la nekk koo xam ne foo ko fekk ci lu baax lay wax kon daal man jàpp naa ni yaakaar naa ni daal ñàkk nañ nit ku baax di sëriñ Sidil Mokhtar yàlla nañu ko suñu borom nag fayal yàlla nañu ko suñu borom fayal baax a baax a baax a ndax man yaakaar naa tey jii daal man lott naa ci wax ci lool lool lool lool lool lool ci bis bi. lott naa ci lool lool lool lool parce que sëñ Touba naa ci trop sama yéene li ma ci wax war a wax bari na lool waaye tey jii moom dama cee lool ci wax ji qaalu subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta al-caliim auzu billah bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah li may wax yow mën nga ko wax sa kazaalika naka noonu sëñ Ousseynou mi mën na ko wax ndax lu ñu bokk dundandoo la muy ñàkk koo xam ni yàlla defal nañu tawféex ñu xam ci moom lu bare yàlla defal nañu tawféex ñu jaxasoog moom leen li sunu liggéey bi ñuy liggéey moo ñu ko may laneen li it yaakaar gi yaakaar sëñ yàlla dogal mu nekk fi bokk ci njaboot sëñ bokk ci njaboot gi nga xam ni ñaanu sëñ tubaa daan bokk ci ñi firneel ni li sëñ tubaa ñaanoon nangu na ci njabootam zuliyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu ak wahab lana zuliyatan tuddiimu al amala saalixa yaa xadim dafa feeñ ci Cheikh Sidil Mokhtar ndax ni mu tegee tànkam fa maamam tegoon tànkam fa ay waajuram tegoon tànkam muy dundal sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa ak lu boole julli di saa su nekk moo mësa nekk toog na fii fii ñu jàkkaar lool muy Daaru Salaam ni loolu mooy xeexam dana ci xeex ba am ci lim ci bëgg kon kooku wuyu na ñaanu sëñ Tuubaa googu ma wax noonu geneen wàll gi muy wàllu taalibe gi ñu gis taalibe gi ñoo ko bokk dundandoo ndax ñun yàlla defal nañu feex bokk nañ fi nekkandoog moom mu nekk fi ak ay waajuram ay rakku Cheikh Mamadou Lamine Bara nekk fi ba kiñ ci mujj gis Serigne saaliw ñu gis ni mu meloon ci moom bokk na ci ñi mujj joxe ndigal ci sëñ Saliou xëy ñëw ne dama bëgg sama waajur wii waxtu sàngam ba waxtu sàngam bu ko kenn yitteewooti gisati nan ko sakkanal ndax am yéene ak bëgg doomu sëñ Tuubaa murit saadixam feeñ na ci wàllu liggéeyam ku nekk xam nga ni Cheikh Sidi Mokhtar li muy def ci tool yi moo ëpp li muy nekk ci taax yi loolu fonk ndigalu sëñ tubaa ci wàllu jaamu yàlla ak liggéey te loolu mooy doctrinu yoonu murit loolu la ñu xam ci Cheikh Sidil Mokhtar moo tax da fekk ni ku matalul doo dem waaye euh, samsu ñu seetlu benn chiffre muy juróom-ñaar ñu seetlu ko ak Cheikh Sidil Mokhtar wax nañ ni juróom-ñaareelu doomu Cheikh Mamadou Lamine Bara juróom-ñaareelu xalif général des Mourides yàlla dogal na yow keroog ñoo fi nekkandoo bi muy nekk xalif général des mourides septième mois la muy juróom-ñaareelu weer wi ci at mi yàlla dogal bu ñu seetee diggante jumaa Touba gi ak jumaa Masalikul Jinaan ga ca Ndakaaru juróom-ñaari milliards dem na ci mbaa lu ko ëpp tey jii boo doon wàññi at yi mu def ak weer yi mu def ci xilaafa gi juróom-ñaari at la ak juróom-ñaari weer sams yàlla na ko yàlla wala talbisu alxaqa bilbatili wa taktumu alxaqa wa antum taalamuun wa aqimu alsalata wa aatu alzakata warkacuu maca alraakiciin أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون